te ku faatoot la des ci moom di ko ñaanal jërë ngeen jëf xam naa ne ngeen jël vidéo yeeg nataal yi lépp di baaxal di ma seeral yi teeg yeneen yamu àndal te bu boobaa bu leen ma fàtte di ñaanal jërë ngeen jëf xam naa ne ngeen jël vidéo yeeg nataal yi lépp di baaxal dima seereel yi teeg yeneen yamu àndal te bu boobaa bu leen ma fàtte di ñaanal